Bougane Gueye Dany dalatina ci kaw premier ministre bu Sénégal di Ousmane Sonko gannaaw kaddu yi nga xamante ne démb la ko Ousmane Sonko yëkkati woon ca Grand Théâtre National jagleel ko ndaw yi fare ci réseaux sociaux yi ak ñi nga xamante ne dañuy ay média nekk fii ci diwaanu Sénégal dootuñu nangu nag benn dérive ca wàllu woowee loole nag leader bu Pastef waxoon ko démb ak gannaaw rek ba muy janoog lauréat yu concours général atum 2024 bii lee ca noppi rek ne moom njiit bu gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany jóg di tontu ki nga xamante ne euh, moom mooy premier ministre bu Sénégal jamono jile nag jàpp nañ ne Bougane gat sa gat sa la woote ndaxte nag gis nañ ne saa bu bu Sénégal Ousmane Sonko euh, defee sorti moom ci kawam mu nekk nag loo xamante ne euh, nemmeeku nañ ko fa démb la Ousmane Sonko xam ne li ni mel tey mu jamono jile la mu jàpp moom mi nga xamante ne moom mooy Bougane Gueye Dany mooy nag ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir réseaux sociaux yi di ci nag exprimer wu nekkuñu ñoo xamante ne nag amuñu ab yar jàpp na ne nag am nañ ab yar ay anticorps kott lañ yoo xamante ne nag dañ fi ñëw ngir nag régler ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñuy gouvernement yi nga xamante ne la leen warloo woon ak askan bu Sénégal ci ay promesse jëfewuñ ko loolee nag jàpp na ne moo sonal ndaw yi ba nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñuy gouvernement fu ñu waxee rek ndaw yi daal di génn di nag jaanoog ñoom li nga xamante ne moom mooy réseaux sociaux yi dafa jàpp ne nag ay anticorps kott lañ mu nekk nag déclaration boo xamante ne Bougane Gueye Dany dana koy def ci bésu atey bi ñu wax ci leneen di chamboulement boo xamante ne nañ ko ci wàllum diplomatie fii ci diwaanu Sénégal gannaaw ay nomination yoo xamante ne ki fi nekkoon njiitu réew bu Sénégal di président Macky Sall defoon na ko ca bitim réew mu jëm ci poste li nga xamante ne moom mooy consul ak ambassadeur loolee nag ñu ci bëri dellu soir nañ nag fi ci diwaanu Sénégal bele yoon nag beneen vague la ñu woote jëwriñ ji nga xamante ne yor lépp lu jëm ci wàllum intégration africaine ak affaires étrangères di Yacine Fall li la daal di xamle ak juróom-ñeent am note de service xamante ne nag fas yéene raxas li nga xamante moom mooy ambassade yi ak consulat ñooñee nga xamante ñoo fi nekkoon ci nguur président Macky Sall jàpp nañ ne nag bokkatuñu yoon dañ leen nag war a soppi laata rek datub 31 août bi ñu dëgmal loolee nag la xamle te ndigal la nag boo xamante mu ngi Sénégal di président Diomaye Faye l'observateur moo biral yi lay xibaar bépp chef de poste diplomatique ak consulaire jamono ji lee nga bokkoon nag ci régime président Macky Sall bëgg nañ nag nga a gaawe dinañ ñoo xamante dañ leen di wuutu ca bërëb yooyu loole nag nekk dogal boo xamante ne nguurug Diomaye Faye gi da koo jël képp koo xamante ne da ab diplomate bokkoon ci li nga xamante moom mooy tabbin yooyu nee nañu nag daal dinañ leen a noté ci ab note de Mboulo nekkoon ambassadeur bu Sénégal ci Congo Doro Sy nekkoon ambassadeur bu Sénégal ci RDC ki nga xamante ne moom mooy Amadou Diallo nekkoon consul ci diwaanu Paris ak yeneen diplomate yoo xamante ne ñu ngi woon ci réewum Lyon Mantes-la-Jolie ak fa nga xamante ne moom mooy ca dëkk boobee di Milan Abidjan New York Casablanca ñoom ñëpp nag daañu leen changé mu nekk nag loo xamante ne nguurug Sénégal daal na koy jël ab transition la bëgg ngeen nag fexe ba dossier yi nga xamante ne moom mooy Yacine Fall yor lépp lu jëm ca bitim réew fexe woon na nag ba ñu dellu soir lu toll ci 80 membres ci personnel diplomatique bi nga xamante ne ñoo nekk ca bitim réew fii ci diwaanu Sénégal maanaam nag seenub lim toll woon na ci juróom-ñett fukki doomi aadama yoo xamante ne dellusi woon nañ leen fii ci diwaanu Sénégal ñu nekkoon nag ca bitim réew doon fa nag occupé yooyu poste jamono jile la ñu bëgg mooy nag ku ci nekk nga daal di nag dellusiwaat fii ci diwaanu Sénégal ñooñu nag nekk ay fonctionnaires yoo xamante ne mën nañ ci tudd ay vice consul ay chef de bureau économique ay secrétaire ba ci sax ay attaché yoo xamante ne ñu nga ca diwaanu bitim réew ab réorganisation la ñu soxla ca poste yooyee xamante ne yu ci ëpp jamono jiile kenn nekku fa bëgg nañ fa nag jël ay homme de confiance ah, teg leen fa loolee nag nekk ab critique boo xamante ne ku ci mel ni colonel Ndaw mu ngi ko doon nag critiquer ne nag poste yooyu dañ ko jël daal di koy politiser ba tax na sax mu doon sàkku ñu daal di soppi doxalin mu ngi ko amaloon nag ci nguurug président Macky Sall loolee duñu ko seetaan benn yoon Yacine Fall li ni mel la jàpp nañ ne nag président Diomaye Faye xamante ne mooy Sénégal fexe nag ba yeesalaat li nga xamante ne moom mooy wàllum souveraineté nationale gën a yeesal li nga xamante ne moom mooy consulier consulat yi ngir nag askan bu Sénégal mën a gis seen bopp ñu gën leen a nag teewal fa nga xamante ne moom mooy ca biti réew jërë ngeen jëf mbokk yi doon teewlu ci chaîne bi nga xamante ne moom mooy Rewmi TV loolee moo fi yeesandi woon ci xibaar ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox di daje ba beneen jàngeen jëf